mbokk yi di leen jaajëfalaat ci ànd geeg topp gi xanaa dikkaat ak yéen ci li nga xamante ni yëngaloon na réew mi alxames gi nu génn mu di dossier Sonko ak Adji saar Adji Sarr di masseuse bi nga xamante ni moo doon liggéey fële ci Sweet Beauté ki ka moom di soxna ndey Khady Ndiaye waaye jàkkaarloo bi bi yoon dañ cee ànd ak seeni avocat ci bureau doyen des juges waaye nag ñu fàttali ne euh, keroog tribunal wax dëgg fa yàlla euh, refusé woon na tuuti mbooloo ndax it kenn ku ci nekk ak sa camp indi ak euh, ñi nga xamante ni ñooy ñëw pour soutenir la Adji Sarr keroog gis nañ ko ci anam yi nga xamante ni mel na ni wute na ak xëy na lañ doon wax ni kat nduru na kuy bëgg xaru wala nduru na ki nga xamante ni wax dëgg fa la bëggatul dara ci àddinaam ci li nga xamante ni ña ànd ak moom moom lañ wax waaye kanu gis keroog mel na ni doon na ku déterminé ngir poursuivre combat ak tuuma yi nga xamante ni xëy na teg na ko ci kaw ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko waaye tamit euh, soxna Ndeye Khady ànd ak borom këram ak avocat am ñoom itamit nangu ñoo des gannaaw ci ñi leen di taxaw ak ñi leen di jàppale euh, waaye li ci mat a xel mooy que ni kenn ku ci nekk ci sa position da nga kaa téye ndax ku ne jàpp nga ne la nga wax moom mooy li am àtte gi nag ki ñuy déglu moom mooy juge bi waaye fi mu ne ni àtte gunu ndax ñu ngi ci dajale élément yi nga xamante ni moom mooy mën a tax ndax dañuy dem procès wala duñ dem procès ak xam ak it ban euh, maanaam euh, taxawaay la ci juge bi na a jël waaye li nga xamante ne moom lañ bëgg dëkk dikk te nu seetlu ko moom mooy ay wax yi ñaaw ay kàddu yi nga xamante ni jib na ci biir bureau doyen des juges diggante camp wu ak camp ki nga xamante moom mooy Ndeye Khady maître El Hadj Diouf mi nga xamante ni moom mooy avocat ki nga xamante moom mooy Adji yëkkati na ay kaddu teg ko ci ndoddu Ndeye Khady ndax moom jàpp na ni euh, biir euh, salon ba amaloon nañ fa ay massage yeneen yu dul yi nga xamante ni moom mooy massage thérapeutique bi muy wax te bu fekkee sax massage thérapeutique moom da koy def moom nee na biiram bi doy na ko soxla fi mu ne nii te bëgg na ko ko jàppale ci massage euh, yeneen kaddu daat wax maanaam ki nga xamante ni moom mooy soxna Ndeye Khady dem na sax ba jiñ ko ab eh, caga ba pare naan ko yéen da ngeen fa doon def leneen lu dul li nga xamante ni moom ngay bëgg a gëmloo askan wi waaye soxna Ndeye Khady tamit nangu eh, toog noppi bàyyi leen ñoom ñu wax la ñuy wax waaye tontu na leen daa dee teggi seen kàddu yi nga xamante ni moom leen wax eh, ku ne sax na ni bi Ndeye Khady génnee bi muy jàkkaarloo ak taskatu xibaar parce que Adji Sarr moom nangu ta wax après dafa dem ñibi wax na ni ñamu jàkkaarloo kero ay Samba Abidjan la ñamu jàkkaarloo kero xàmmeewu leen parce que moom elle ne comprenait rien quoi mbir yi doy na waar ba fu doy waar yem ñu ca ki nga xamante ne ni euh, moom mooy soxna Ndeye Khady fàttali na tamit ne Adji Sarr mii maanaam li ko nit ñi bëgg foogee tamit doonu loolu elle est une fille ni ko tubaab mën a wax de mœurs très légère ah li ñu mën a tënk daal mooy camp bu ci nekk fi mu ne ni jàpp nga fa nga jàpp ku ne yaa ngi jiiñante sa morom dëmm ku ne yaa ngi jiiñante sa morom caga ku ne yaa ngi jiiñante sa morom wax ju ñaaw léegi nag ñun askan wi boobu ba tey nu ngi xaar euh, xam réellement fan la mbir mi nar euh, féete ah li tubaab di wax naan la balle dans le camp Euh, du du du juge en ndax dañuy dem procès wala duñ dem procès lan moo nara doon euh, beneen tournure bi feuilleton bi épisode bi ci topp fan lañ ci nar a jëm ñun daal ñu ngi euh, toog di xaar waaye mbokk yi di leen fàttali na daal li nga xamante ni am na keroog li ko tàmbalee daanaka suba si ba ca daanaka ay une heure presque la fa taskat xibaar yi mujj tàggalikoo ak ñoom maanaam li ëpp fukki waxtu ak ñaar ci tour d'horloge amaloon nañ ko fa ci biir ngir jaamaarloo goo xamante ni daal safoon na sàpp safoon na sàpp lool kon mbokk yi di leen jaajëfal.